من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت قد أخبرني رسول الله صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك أن من تاب من أمته قبل موته فإنه يصفع فيه عند مميت ميته وأن من لم يتب منهم توبة نصوحا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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من سلمة الجهل والسرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فاحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مختفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل, بفضل من جاد بفتح الرتق فمن ذكر الله تبارك فمن ذكر الله تبارك وتعالى فيه فإنه يصفر بكل ما من الخير يصطفيه فاطلب فاطلبوا من الله تبارك وتعالى خيره فإنه تبارك وتعالى يصرف إلى خيركم ديره وتوبوا وتوبوا فيه إليه تبارك وتعالى من جملة العصيان فإنه يغفر لكم ويكف إلى خيركم سوي التخيان وتوجهوا إلى ربكم بالكتاب والسنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفيكم من أبوا فيه الاجتماع بجاه ذي الغثوات المرضية صلى الله عليه بآله وصحبه سوي الأرضية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتقص ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من السلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakaatuhu جلدي jullit yi ñoo ngi leen di len ñaanal jam ñaan sun borom boole ñu ko di len ndokkeel ci bis bu mag bi di yawmal eid adha di len ci ndokkel bu baax baax di len balu haqq te di len bal haqq ñaan sun borom mu boole ñu jéggal niñ ko waxe rek ci bir khutba bi moy bis bi bisu eid la bisuk yaatal yaatalante si sunu biir la bisu wane mbégte la jëme ko ci jullit ñëpp waaye bisu lekk la bisub naan la bisub goreel la itam waaye bisub sant sunu borom la ci xewal yi ñu defal te bis bi bokk ci ndax ku fàttali ko cosaan la rek da nga xam ne lu mat a sant yàlla la loo xam ne cosaan la bañ koy nasir di ko def doomu aadama lañ lañ tëroon ba koo rey suñ boroom soppil ñu ko gàtt loolu ku ko fàttaliku danga xam ne bis bii waras na cee mën a sant yàlla bu baax kon ñoo ngi koy sant bu baax ci xéewalam yi di sàkku ci ngëneelam yi waye nak di fatali sunu bop di len fatali ci li ñu fi indi ta bàyyi ñu fi ndax sunu borom dafa wax ni binduma nit ak jinne lu ñu jaamuma sëñ Saalixu daana wax ni ñaari wa ñaari wa yi buñ koy jaawale wa ma min wa ma l jinna wal insa illa liya'budun ak wa ma min dabbatin fil ardi ilaa ala llaahi risqoha mooy binduma nit ak jinne andi leen ci kaw suuf lu dul ñu jaamu ma kon su nekk waaye ci kaw suuf war na war nañoo bàyyi xel loolu bu baax a baax jaamu yàlla sun kemt lay kàttam nañ ko mane te loolu mooy topp njàngalem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lépp lum ñu digal ñu def ci suñ kemt lay kàttan waaye lépp lum ñu tere ñu bàyyi ko ba ba ba bañ dara waawaa gi ci des mooy amul kenn ku yàlla wàcc ci kaw suuf lu dul ne wërsëg walay wala yor walay dundal moom suñ boroom moo la ko gàddul loolu yaakaar naa buñ ko buñ ko xamoon gëm buñ ko gëmoon Euh, jëfandikoo ko yaakaar naa benn soone bi duñu duñu duñu duñu duñu duñu topp maanaam buñ bàyyee woon yàlla lim ñu warlul te nekk ci li nga xam ne moom lañu sant yaakaar naa benn coono bi duñu duñu duñu topp kon ñoo ngi koy fàttali ñoo ngi koy fàttali suñu bopp di ko fàttali jullit ñëpp ak jullit nag dafa war a am xel tey xalaat ndax bokk na ci jaamu yàlla yi liy gën a mën a yóbbu jaam bi ci boromam mooy di xalaat digganteem ak boromam waaye di xalaat li li yàlla bind di xalaat àdduna ni ko yàlla binde asamaan ak suuf ak li ci dox lépp rek ñu di ko bàyyi xel di ko xalaat loolu bokk na ci li ñu gën a mën a yóbbu suñu borom ba tax na sëriñ bi daana wax ne ñi am xel de dañuy rawante ci ay xel ci ay xel waaye ñi amut xel ci ay naaru góor lañuy ñuy rawante buñ ko doon tekki ci jamono ji mën nañoo wax ne ci ay oto la ñuy rawante wala kër yu rafet wala nangam ak nangam waaye ñi am xel nag dañuy rawante ci seeni xel nan lañuy rafet rawantee seen xel mu ne ki am xel lépp lu yàlla tàgg baaxal ko dana fexe ba ba dugal ko ci boppam ki gàtt xel nag te amul xel lépp lu yàlla ŋàññi ah, bonal ko moom du ko ràññee da moom day jàpp ne rek loola du dara moo tax mu ne ki am xel day jàpp lu baax lépp dugal ko ci biiram yeew ko ba du rëcc ki amul xel nag moom def safaan ba kon war nañu bàyyi xel bu baax baax xel mi ñu yàlla jox euh, ci di xool fan fan la ñuy jëmee bu ko defee xam naa kàddu yi du gudd ndax bis bi dafa xat ba noppi naaj wi tàng waaye ñu leen di fàttali rek sunu borom baax a baax di leen fàttali itam li nga xam ne ay ngëneel la yoo xam ne euh, jullit bu nekk war na koy war na koy bàyyi xel te loolu mooy dimbalante si sunu biir surtout jamono ji ñu nekk kenn ku ne xam na ne jamono yi jafe-jafe la ñu bëree bëree bari na leen ko yàlla sant xëy na duñ ko ni duñ ko ni mane waaye bu jullit ñi bàyyente xel seen biir rek kenn ku nekk ka la gën a jege nga bàyyi ko xel ci lépp loo xam ne xëy na waroon na ko ci bis bii te mënu ko yow loo ko si mën a nga dimbale ko ci te yalla tax lolu bokk na ci li yok julit bi tiyaba kon ñu ci eh, soñ mbokk mbokk yépp di len ko di len ci soñi tam ta ñu bañ ko yamal rek ci bis bi waye ñu wara xam ne dañoo wara ak mom ndax eh, bokk na ci jëf ji gëna baax ci ab julit moy dimbalante ta loolu yonente bi sallallahu alayhi wax na ko wax na ni boo liggéey yowmal xiyaam benn daggu mburu wala benn ngëbu luñ mën a lekk suñ borom yowmal xiyaam dana tabal ñett àjjana bu yowmal bu ëllëgee yowmal xiyaam mooy ki nga xam ne moom moom kër gi moom alal ji waaye ak soxna si nga xam ne moo toppatoo alal ji bañ mën koo jariñoo ak ki nga xam ne sax dafa nekk ci kër gi doon ab surga wala mu doon am bindaan ah, nga xam ne moom daanaka jaarukaay la rek ci ci moom pour ki ko war a jot jot si maanaam borom kër bi nga xam ne moo ko moom moo moom alal ji ak soxna si ko defar ak mbindaan mi wala ka maanaam wala liggéeykat bi nga xam ne dafa nekk ci kër gi ba jottali ko ki ko aajowoo boo liggéey yomal xam ñett ñoo ñëpp suñu borom li leen tàbbal àjjana ci loolu kon loolu liñ ciy dégg rek mooy Euh, ndimbal lu rëy ndimbalante lu rëy rëy la ba tax na war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax kon ñu ngi ci bàyyiloo xel euh, bu baax a baax a baax bu ko defee nag suñ jamono ji jamono ju metti la te lu ci bëree bëri bari rek ab jullit lu ko dal da koy da koy mën a delloo ci boppam war naa xoolaat boppam xoolaat boppam ci lan mooy ci li ko yàlla sant ndax moo ngi koy taxawee na mu ko war a taxawee loolu ab jullit toujours rek war na war na ci euh, xool boppam ndax dañoo wax ne jullit bi su xëyee war naa xisaab boppam ba xam li ko yàlla sant digal ko ko moo nga sa wala déet ak fum sa toll bu ngoonee itam war naa xisaab boppam ci loolu kon jamono ju nekk rek war nañu xisaab suñ bopp suñ digganteek suñ boroom kon ñoo ngi koy bàyyiloo xel yëpp euh, réew mi nag jafe-jafe yi bari na waaye li ñuy mën a dindil jafe-jafe mooy ñun jullit ñi liñ jàpp ne moo ñu mën a dindil jafe-jafe mooy ñu tuub dellu suñ boroom te ni ma ko waxe woon kenn ku nekk lu waay tane sa moroom nga dimbali ko ko te bañ bañ a xaare dara ëllëg ci lu baax ndax ab julli warta xaare dara ëllëg lu baax koo xam ne bu xëyee yonente bi saa sallam nee na ko ab julit bu xëyee war naa jàpp ne ñiy yend ji alaxira ci lay bokk bu ngoonee war naa jàpp ne ñiy fanaane alaxira ci lay bokk kon kooku warut a denc dara lu baax di ko jëmale ëllëg kon lu waaye mënal sa moroom ci lu baax ñoo ngi leen koy dénk di ko dénk suñu bopp ñu ñu taxaw ci loolu di lu ñëpp nag di jéggal ñëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon ñu jàng fatiha falaxeeg naas ñu def ñaan suñu borom may ñu ñu fekk ko te yàlla wéeral ñi tawat ñëpp képp koo xam ne itam gàllankoor yi àdduna dab na la yàlla na ko suñu borom teggil ci barkeb yonent bi barkeb Sëriñ Tuuba